sax nit da cee war di sant yàlla ndax am na ñoo xamante ne at mu bees mi ñu dugg wax dëgg yàlla fekkewuñu ko ren te fekke woon nañ ko daaw te sant mooy waral sunu borom di dolli la in sakartum laazidanakum kon ñu ngi sant yàlla bu baax a baax a baax a baax ci at mu bees mi nga xam ni mooy atum jullit yi mm-hmm. di atum weeru tamxarit nga xam ne mooy atum atum jullit yi ma ci joxe njariñ loo xamante ne ci wàllu tuub bàkkaar lay dox te ab jullit war bu duggee ci at mu bees war naa yeesalaat digganteem ak boroomam mm-hmm. ak tuub bàkkaar mm-hmm. naafale gii nag ma ciy bëgg a joxe am na boroom xam-xam boo xam su ma tuddee ñi ñuy seeraan xel yi dana dem ci moom muy wàlli boo xamante ni yàlla na ko yàlla dooli leer muy sëñ Asan Salaam yàlla na ko yàlla dooli leer daan na ko soññee bu nu duggee ci weeru tamxarit muy naafile goo xamante ne mm-hmm. ku ko def na nga am preuve maanaam na am yaqin ni sunu borom jéggal na la ndax doole naafile gi raka bu nekk da ngay jàng fatiha muy alhamdulilahi rabbil alamin ak juróom-ñaari lixlaas daal di taay sëlmal maanaam ñetti sëlmal lay doon rakka bu nekk da nga jàng faatiha ak juróom-ñaari lixlaas taay mhm. sëlmal julliwaat ñaari rakka taay sëlmal julliwaat ñaari rakka taay sëlmal muy juróom-benn rakka su ko defee mhm. nga daal ci toftal astaxfirullaha téeméeri yoon toftal ca salaatu ala nabi boo man rek waaw julli ci yonent bi nga daal di fas ci sa xol mm-hmm. ñaan sunu boroom mu jéggal la sa bàkkaar yi nga tay ak yi nga tayul ak yi nga yëg ak yi nga yëgul mm-hmm. soo ko defee naafile la goo xamante ne nitu yàlla yi daan nañ ko def di ci jéggalu sunu borom am na waaye samedi lay doon samedi boo ko def nag ci weeru tamxarit gi baax na ci diggante gee ak timis ak timis mm-hmm. juróom benn rakka yàggul lu baax nag moom dara jaru cee xeeb. dëgg la ndax bàkkaar dana waral pakk feebar sax bàkkaar moo koy waral dana waral ñàkk dana waral merum sunu boroom dana waral dana waral tamit safadi maanaam boo safoon nit ñi dem ba soof leen. dana waral tamit yooyu yëpp kon lépp lu ciy musale rek te boo ko defee tamit ba pare soxna Aïssa. Mhm. nga moytu cee delluwaat. ndax sarti bàkk tuub bàkkaar mooy boo paree la nga tuuboon damay koo defaat ndax boo ko defaatee suñu borom mën na la jee teg leneen lu ëpp loolu euh, beneen bi ci topp muy Seydina Alin boroom xam-xam bu mag ba mm-hmm. nga xam ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daan na wax naan man maay màngasee xam-xam màngasee nag dana am bunt ñu ni ko yaa rasulullahi kan mooy sa bunt mu ni muy ne mu ni mooy Alin alit moom sunu borom xamal na ko xam-xamu barsàq mën naa toog fii xam ki ni mbugal yi yàlla ko xamaloon bu téenee mën naa xam xew gin euh, juróom-ñaari bu sëggee mën naa xam xew ci juróom suuf si loolu la ko yàlla naa li moom moo joxe woon xam-xam bi ci weeru tamxarit neena bis bi njëkk ci weeru tamxarit bis bi ci njëkk maanaam comme ça altine bii passé mhm. ndax tey la ñetti fan yi nee na soo ci bindee 113 basmala 113 bisimilahi rahmaani rahim foofu rek waaw téeméer ak fukk ak ñett. Mhm. bisimilah rahmaani rahiim bisimilah rahmaani rahiim muy téeméer ak fukk ak ñett waaye ci bis bi njëkk ci tamxarit lañ koy bind. nee na nga takk ci takkal ci sa njaboot nee na suñu borom dana la sàmm ba nga xam ni asamaan si ak suuf si bu doon laalante ci at mi suñu borom dina la wutal fu mu la làq. Mhm. waaw suñ borom dana la sàmm sàmm sa njaboot bu fekkee doo ko doonoo ko mën a takk nga bind ko sang ci sang ci sa njaboot loolu nag taxoon na ñu fàgg woon ci yu baree bari ndax am na ñoo xamante ne ci weeru tamxarit dañuy ñëw di ko jël si ci man ñi ma xam xam nañ lool waaye boo ko waxee ku koo xamante ne ragalul yàlla mën na koo bind ci bis bi nga xam ne moom nga ko wax jox ko ko baax na waaye xam-xam na mu ñëwee noonu lañ koy jëfandikoo maanaam fu mu ne nii faat na hmm. bis bi njëkk ci weeru tamxarit muy altine bii paase ci nga koy bind noonu la ko si naa liñ santaane soo ko bindee 113 nga takk ci takkal ci sa njaboot suñu borom dana aar sa njaboot gépp gépp gépp waaw taxoon na nag fàggu nañ ci yu baree bari hmm. képp koo xamante ne yàlla dogal na nga soxla ci boo wootee mënees na la ko libéré mën ngaa ñëwee ñu jox la ko Euh, bi ci topp guddik tamxarit lañ koy def. ci guddi gi. waaw guddik tamxarit. Mhm. bu ñu fi yàlla bàyyee ak jàmm. incha bi sallallahu alayhi bu musaane julli ba pare gee ba naan daan na ko def mook ay saabaam <coughs> ñu jéggal ma. nee na bi sallallahu alayhi wa sallam daan na ko def bu jullee ba pare guddik tamxarit mook ay saabaam muy laa ilaha illa huwa alxayyul xayyuumu laa ilaha illa huwa alxayul xayumu laa ilaha illa huwa alxayul xayumu ba muy 324 soo ko defee suñu borom dina la dimbalil boppam téye sa gi ba at mi fekkaat la fi maanaam day tax a fekkewaat déwén ku julli guddi tamxarit soxna Aysa mhm. ba pare na nga jàng laa ilaha illa huwa cent vingt 324 ku ko mhm. def mhm. ci kàttanu yàlla ak yërmaaneem ak mën a nangoo ay ñaanam di nga fekkewaat déwén guddik tamxarit maanaam bëccëgu tamxarit bu nu jullee ba pare taamu nan ku ci def junniy xulwa xul allahu ahad allahu samad lam yalid walam mu walam yakun lahu kufuwan ahad loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan ko def siiw na dinañ koy wax ci jàkka yi di ko wax ci jumaa yi waaye comme fii jàllalukaay la ku ko man nga bàyyi ci xel mhm. lixlaas ñaanu gudd fan it daan nañ ko ci yeesal. Mhm. lépp luy tax a gudd fan. waaw ndax mooy mooy atum jullit yi dinaa ci joxe benn boo xam ni baax na ci. mooy lan waaw muy isa samsu kuwirat wa isa nujuumi inkadarat wa isal jibaali suxirat soo ko bindee ñetti yoon bi nga njëkk a bindee da koy maas tomb ko beneen bi da nga koy tomb waaye doo ko maas. bi ngay mujjee bind doo ko tomb doo ko maas. noonu nga koy bàyyi. waaw yàq bi rek ngay indi. Mhm. su ko defee nga def ko saafara saafara si nga def si ndoxum sam-sam nga jël doomu taal. nga mhm. def ko saafara si ba saafara si weex nga nga raxas ci sa bopp ñetti guddi wóor booy tëdd nga raxas ci sa bopp ba mu mën ñetti guddi euh, wax na ni bala ngaa faatu sa bopp dana weex tàll ak bijaaw. macha mhm. waaw waaye boo ci raxasee sa bopp. dangay bàyyi doom bi fanaan ci boo xëyee nga doo ko sangu wax na ni bala ngaa faatu noonu doomu taal bi weexale sa bopp bi noonu ngay weexe taal ak bijaaw te bopp bi day mel ni ba sukkee naa allah foofu la ñu yemalee <laughs> <laughs> ci lu dul ay tent nag <laughs> jërëjëf jaajëfal nañ la bu baax a baax joxante dig daje bu mercredi prochain incha waaw xam naa di leen jox euh, dig daje incha allah ba mercredi bi ñu jëm waaye comme basmala yooyu ma joxe nii ci kii lañ koy bind bis bi njëkk ci tamxarit te ni bindoon ci yu bari ndax ñun lu am njariñ rek du duñu bëgg ndeysaan mu raw ci bis boobu ni bëgg mu bari jaam ñi mën koo jëfandikoo ku ci bëgg rek da ngay woote ci 78 530 69 81 wala nga woote ci 76 883 18 76 asalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullah jërëjëf Fawzeyni jaajëfal nañ la bu baax a baax euh, ci secret yi Keina naa beaucoup. à demain à demain allah incha juste que di wax aussi question wu Grégoire bi nga xam ne jotoon na ko laaj euh, pour ñi nga xam ne dañuy dàmp dañu war a am dañu ko war a jàng d'abord avant li nga xam ne nag moo nekkoon affaire médecine jamonoy maam. xamuñu woon yooyu donc ñi nga xam ne ñoo doom dàmp ñoo doon rawale ñi nga xam ne aussi euh, ñooy rawale ñooy dàmp ba xale bi juddu ba nit ki aussi nekk ci jàmm donc je pense que kii daf ko daal di donn ci maamam et jën ay cours yu baree baree bare intégralité bi euh, boo leen ko seetaanee dina wax parcours am également nu ko jàngee ak naka la koy defee ak ñan la koy defal ak ñan la ko warta defal ak bébé yeeg femme enceinte yi lépp loo leen bëgg a xam rek dina ko wax ci émission bi di daje Aïcha incha allah ba demain soxna sama maa dafa am ñaari kàddu ne am na solo lool ci nit ñi koy dégg maanaam nit ñi naan sant yàlla bu baax ci at mi mm. maanaam at mi atum naataange la mm. maanaam atum xéewal la macha allah message bi ni ko ñëpp déglu sunu borom dina ci dimbali ñu ba ne seen wërsëg daa gàttoon sunu borom dana ko yaatal bari na ndaw yoo xamante ne danoo bëggoon a tukki mu jafe leen danañ tukki te réew yéen yi mm. borom dana ci yokk borom taraanga sunu borom dina ci yokk seen taraanga. am na téléspectateur bu mi nag saraxam. Mm. ku dégg ku dégg lii rek na nga ko jàllale ngir jëmmi yàlla bu fekkee yéen a nga nit ñi jàmm. admis atum xéewal la ku dégg lii na nga ko jàllale saraxe juróom-ñaari ndox muusu ndox bu doonee pekketi ndox yi fukki dërëm yi sax baax na waaw bu ko defee ku ci jot rek nanga ko jàllale te na nga mhm. saraxe juróom-ñaari ndox. salaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu. waaleykum salaam wa Mm, merci beaucoup jaajëfal nañ leen bu baax a baax mbokk yi 10 di ngeen am seen flash d'information 11h Sister Maria daal di ñëw daal di leen di gunge moom ak sa team dans la mi-journée l'avant-première lu may loolu programme bi dafay daal di wéy euh, matinal bi nag ñu leen di jox dig daje ba ëllëg incha allah jaa na si loolen ne si